الشيطان الرجيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء وبلغ رسوله المصطفى الكريم ونحن على ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل لنا إماما ونورا ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا ما جهلنا leen di nuyu euh, ñun nag ñun ñooy euh, kuréel bi nga xamante ne ANCPS bi nekk euh, ci région Diourbel di bànqaas boo xamante ne ANCPS la bi nekk niveau national ñu amoon bis boo xamante ne yàlla dafa dogaloon ñu bëggoon cee ñaanal way dawul yi nga xam ne ñu jiitu ñu jàppee ko depuis 1960 wala lu ko jiitu ba suñu jonn yàlla tey ji ñu jàppoon bisu le 25 bi waroon leen cee eh, ñaanal leen ci eh, muy loo xamante ne nag bi mu egsee ci ci ñun ginnaaw fi ñu nekk dafa nekk dëkk boo xamante ne barab bu yaakaaru ñu ne ñu sasoo woon lépp lu jëmoon ci wàllu culte bi mooy wàllum njàngum kaamil meeg ñaanee yooyu yàlla dogal na biñ ci waxtaanee ak ki nga xamante ne sunu conseil la te yàlla dogal muy yëngutu ci wàllu daara yi sëñ Alaaji Ndiaye Cheikh Ndindi ñu waxtaanoon ci ak moom ba am am doon ci tënkoon buñ ci réunion tamit ñun ñi nga xam ne ñun ñoo ne ci ANCPS niveau ci région Diourbel am di jaayante woon defoon suñu biir loo xam ne ñun membre yi ñun ñoo ko jaayante woon yàlla dogal ñu jàmbali woon àllarba bale passé njàngum kaamil yi ak basmala yi ak salaatu ala nabi tey nag di àllarba waat di huitième jour bi ñu doon teg xatmu bi ñu fekk si woon sëñ Alaaji Njaay fii si daara ji ak tuutànk yi yàlla dogal nag ne def nañ vingt huit kaamil daara ji jàngal nañ ñu ko ñun tamit ñi nga xam ne ñun ñooy membre yi nekk ci région bi euh, def nañ trent mille basmala ak euh, deux mille salatu ala nabi yoo xamante ne membre ANCPS bi nekk ci région Diourbel ñoom ñoo ko def daara ji moom euh, lim bi kawe na lool suñu jor tax ñoom dañ ko dëppale ak arafi Touba muy vingt huit maanaam ñu jàpp ne vingt huit kaamil daal lañ la ñu wàccee kaamil lañ lañ ci jàng. ñuy sant nag euh, ñi am xalaat bi waaye di sant mi daara yi nga xam ne doon nañu jàppale ci ci wàllu woowu ndax it wax dëgg bi ñu ko waxee sawar nañ ci lool yombal nañ ñu ko lool àppana nañ ñu ko lool. ñëpp nag bëggoon nañoo teew membre yëpp bëggoon nañoo teew ci euh, tëj bi waaye yàlla dogal xam nga tey dafa tëj rek examen yi ñëpp mënuñu woon a ñëw waaye ñenn ñi ñëwal nañ leen teewal leen ci ci barab bi ñuy ñaan lépp luñ fi jàng rek yàlla euh, boole ñu ko ñun ñëpp fasal ci ñi nga xam ne ñoom ñoo jiitu. di ñaanal di ñu fi si yàlla aar leen defal leen ndam ci li ñuy liggéey musal leen ci musiba ak balaa ci def jàmm tamit ci réew mi ndax it ñu ngi ci jamono yoo xamante ne réew yëngu na torop te ñun ñuy yëngu ci waa fànn boobu ñoo gën a exposé wu kon ñun it ñu ngi tàbbal suñu bopp ci ñaan yooyu noonu di ci ñaanal kilifa diine yëpp di ci tamit waa réew mi yëpp di soññee tamit ñu gën a boole suñu bopp gën a ànd cay gën a sellal tamit liggéey bi ñuy def. di sant ñëpp ci membre yi nga xam si ñoom ñoo nekk ANCPS Diourbel ndax biñ ko waxee ba léegi ñoom ñëpp ku ci nekk tamit te ngi sa alal def ci boole ceeg réunion yaa ngi dagg say activité di ñëw réunion yi incha allah loolu daal la woon ñu ngi koy jottali di sant ñëpp di gërëm ñëpp. li leen sababu seen moom mooy seeni mbokk ñu doon moo xam ay cameraman lañ moo xam ay journaliste yu journal lañ. moo xam ay communauté son lañ bi ñu mën a doon rek activité bi ñu doon yëngatu ci ci wàllu tasum xabaar ñoom yàlla dogal na ñu jiitu bi maanaam ñi xam ne ñoo ci ñoom la ñuy sàkkul ay ñaan ñu woowoon ma nag waxal ma ko bëggoon ñu jàppale leen demee na ki bu dee yëpp nañ ko def ñu seet waaye ñoom ñu féete woon ñoom ñu dëkk Touba ñu féete woon wàllu kaay yi daal waaw ñoom seen jëmmi bopp ñu ngi yor seen i turus liñ man ci ay salatu alayhi bi ay junni junni la ji rek basmala ay junni junni la ji rek xeeti ñaan yi diñ jàpp rek am yiw yàlla nañ fay am yoon def nañ ci ay junni ñoom seen bopp safoo ko ñaanal ko ñu seqaloon liggéey bi ñaanal ko jullit ñu ñu faatu ñëpp ndax yàlla moom ci coobaram lañ leen lay def kon yaakaar yooyu lañ am ci ci ñun moo tax bu ñu ko waxee ñu wax suñu cheikh wax nañ ko ngir yaakaar jooju bañ a tas dal ñun jàng nañ daal yàlla comme ñaan ngir ñaar fukki ak juróom-ñett ba jàng ñaar fukki ndax lii ñuy def ci bopp lañ koy defal maanaam sëñ Fall dafa waxoon euh, boo fi bëggee yàgg wax boo bëggee lu defar am njariñ te du am njariñ da ngay ñi fi nekk di ñaanal ñi fi nekkul amoon njariñ ñi fi nekk nee na boo amal njëriñ fi nekk dañ lay ñaanal sa wërsëg di yokk dolli boo ñaanal ñi fi nekkul dañ lay ñaanal nga yàgg leen ñaanal nga yàgg nga yàgg